yukaay am lu ñuy job tey jubal ndénkaane bu amul saytu dafay yomb ci luuba mbokk yi gërëm leen sant leen ci seen ànd ak ñun ci rajo Rewmi FM ci émission gox bi tey nag euh, émission gox bi ab euh, tiis rek leen koy ubbi ci journaliste bi nga xam ni moom moo di Mamadou Ndiaye Doss moom moo mujj génn àdduna nekkoon na fële nga xam ni moom moo di ca groupe euh, de médias ci sama kaddu waa groupe promo consulting ñu ngi jébbal njaal famille am ak groupe bi nga xam ne nag fa la nekkoon mu nekkoon groupe des médias ci noonu rek la ñuy daal di dalalee sunu invité di Cheikh Diallo nekk directeur cabinet cabinet bu euh, maire euh, Gueule fas Fass Colobane ñu koy wax Ousmane Ndoye Diagne bi Cheikh Diallo ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. ñu ngi lay fay di di wax aussi famille ki nga xam ne moom lañ perdre léegi muy ñaay dos. di ko mhm. ñaanal aussi yàlla. Mhm. xaaree ko ajana yi gën a kawe. Mhm. ndaxte ku xam njaay dos xam ne. Mm-hmm. acteur bu mag la ci presse sénégalaise. Mm-hmm. Mm-hmm. alors ci noonu rek la ñuy euh, daal di doxalee rek euh, émission bi xam nañ ni euh, li dal ci àdduna wërngal këpp nga xam ni sax bàyyiwul réewum Sénégal mu di coronavirus bi nga xam ni. moom moo lëmbee àdduna fi mu tool nii ndax mënoo wax dara loo xam ni te laaloo ko te secteur bu nekk rek Euh, euh, lompañal na ko mu xam jëm ci wàllum koom moo xam ci leneen waaye nag luñ ci gën a tey intéressé dañuy daal di waxtaane itam ña nga xam ni ñoom ñoo di maire yi ñoom responsabilité bu nu am ci li nga xam ni moom moo jëm ci jàngoro bi euh, sëñ Cheikh jàngoro bi ñëw na mhm. tey li ni mel Sénégal mu ngi toll ci cinquante six cas dafa mel ni nag mbir mi nag mu ngay gën di doy waar waaw maa ngi lay euh, nuyu bu baax di nuyu euh, waa réew mi FM bi nga xam ne ñoo ñu invité tey si plateau bi. Mm-hmm. pour ñu waxtaanee li nga xam ne moo lëmbee àdduna bi du Covid 19 ñu gën ko xamee ci turu. Mm-hmm. coronavirus. Mm-hmm. tey jii nag soo xoolee euh, depuis bu président de la République dafay conseil présidentiel bi du 14 mars. le le lendemain le maire dafa réunir def un conseil extraordinaire. le bureau municipal élargi au à la commission santé. Mhm. ñu boole ci woo le médecins chefs. Mhm. qui sont ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi. Mhm. woo euh, imaam yi woo bàjjanu gox yi. woo préfet. woo presse bi pour waxtaanee. xamal population bi que tey di feebar bi ñi nga xam ne mooy coronavirus. feebar bu existé la te feebar bu bu danger la ci population yi. ñu jël nag foofu jël ay matukaay yu wóor. Mhm. yoo xam ne dafay dem ci directive u euh, chef de l'État bi nga xam ne depuis le 14 mars moom jël na. Mhm. Euh, décision fermer les écoles. donc mhm. ñun aussitôt leen di le maire a fait une note. yóbbu ko ci école yi pour que ñu respecter décision boobu du chef de l'État respecté nañ ko foofu. respecté nañ ko. élèves yi ñu ngi toog seen kër. en attendant ñu xool. Euh, nu ñuy yenn matuwaay yeneen la ñuy jël pour mhm. que vraiment ñu mën a empêcher mhm. euh, virus bi mun a law au mhm. niveau de de des populations mel na ni yéen xaaru leen da ngeen jël dès que l'instant que rek njiitu réew mi jël na dogal yi rek yéen ngeen commencé appliquer li ni mel ci seen gox bi ndax la nga xam ni moom moo jëm ci sensibilisation bi mi ngay wéy ci gox bi nga xam ni moo di Fass Gueule Tapée Colobane mi ngi wéy parce que comme ni ma la ko expliqué ci lendemain déclaration du président de la république le mhm. maire Ousmane Ndoye dafa def un arrêté mhm. un arrêté bi nga xam ne dafay interdire mhm. la euh, marché luuma bi nga xam ne da am foofu les mercredis non seulement yemul foofu dañu teg en place benn benn cellule boo xam ne de veille boo xam ne moom mooy chargé wu xool képp koo xam ne danga nga war a lal ñu dindi ko. Mhm. en collaboration avec la police. Mhm. bi nga xam ne mooy la police Médina pour ñu mën a respecter ces décisions la mhm. donc soo xoolee on est tey jii mairie bi njëkk bi nga xam ne moom moo jël. à travers le maire Ousmane benn dogal. pour appliquer. décision yooyu. bien vrai que yombul woon. waaw yombul woon parce que aussi il faut dire les choses telles qu'elles sont parce que euh, sénégalais dafa xaw a dëgër bopp. parce que lii nii tey jii Euh, feebar bu bu bu graaw lay andi. te mhm. te vraiment ñëpp ci jaaxle ci àdduna bi. donc mhm. su su suñ duggee fi Sénégal. Mhm. war nañ teel a jël ay matukaay pour arrêter ko. pour arrêter ko parce que euh, nuñ ko mën a arrêter mooy ñu éviter. tey jii. nit yi di regrouper wu. Mhm. di regrouper les regroupements. Mhm. nit yi dañ ko war a éviter. Mhm. moo tax ba dogal bi amee rek maire ñu veiller si. mu mettre en place benn cellule bi nga xam ne. chaque fois mooy veiller. à ce que ce cet arrêté là respecté. te ba tey gis naa ne aussi arrêté bi ñu ngi koy respecté te cellule baa ngi fonctionner. te yamul foofu kase parce que marché yi on a marché marchés on a le marché de. Colobane mhm. ku xam marché Colobane xam ne marché bu bari yëngatu la mhm. bu bari yëngatu la te bari na ay ay ay va-et-vient mhm. marché passe le maire mu ne du yam foofu day nettoyer marché bi ba pare parce que tey jii ci ngoon lañ ko prévoir pour nettoyer ko en collaboration avec la police et les sapeurs pompiers buñ ko nettoyer ba pare on va sortir un arrêté pour chaque jour am mhm. benn heure boo xam ne marché bi day tëj. ban heure la. bon 17 heures lañ jàpp. Mhm. boo xam ne dañ ci waxtaan ak les délégués. suba gi daal nit ñi dinañ ñëw liggéey si suba dinañ ñëw liggéey si. Mhm. avec avec toutes les mesures. parce que euh, am na benn équipe de veille boo xam ne mi ngi foofu ci biir marché bi. di sensibiliser en même temps. mais aussi bu heure bi jotee ñu fermer marché bi ñu mën a. delluwaat foofu pour nettoyer waat marché bi. je pense que loolu aussi c'est une bonne chose. li ni mel euh, ndax sabab na waxtaan yéen ak ñi nga xam ni ñoom ñoo di délégué yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci marché bi puisque ñoom itam ñu mën a xam ni euh, li ni mel euh, bàyyiwul ku ne. Mhm. ndax yéen a ngi leen di sensibiliser ñoom délégué yi. waa xam nga tey jii ñun soo xoolee suñu commune avec à travers le maire Ousmane Ndoye. Mhm. amul benn décision bu ñuy jël ñun kase. Mhm. bépp décision bu ñu jël dañ koy toog ñu convier mhm. les parties prenantes ñu ñoo toog autour table ñu toog ñu waxtaan ko discuter ko trouver une solution ne lii la ñuy def après nag ñu génnee résolution nag su foofu dara te ne lii la ñuy def mhm. donc c'est pour vous rejoindre que que que waxtaan nax délégué de quartier waxtaan nax marchand yi mhm. ba ñu tombee d'accord ci loolu ñu xam ne lii ñuy mesures yi ñuy def nii en fait suñu coobare ay mesures loo xam ne dañ koy jël pour surtout ñoom ñi nga xam ne dañ fay jaay. parce que mhm. aussi feebar bi épargné wul kenn. Mhm. ñëpp lay jàpp donc nu ñu lépp nu ñu mën a def pour prévenir ko rek dañ koy def donc di remercier commerçant yi aussi à travers le délégué. Mhm. parce que ñoom aussi. ba maire waxee idée boobu ñoom dañ ko rafetlu. et puis ñu mhm. comprendre nañ enjeu bi ñu comprendre enjeu bi et puis ñu dem ak ñoom ci ci mhm. ci loolu kese. Mhm. mais. allez ci maa nga bëgg continuer. bon ci ci ci juste pour wax rek. yamuñu foofu en plus. ba loolu amee maire dafa génnee une enveloppe de de de dix millions. tey jënd ko ci ay ay produits ay gel. ay ay ay eau de javel ay kotol. yoo xam ne dañ koy delloo population bi. parce que. am na ay sensibilité yoo xam ne euh, il faut que maire bi euh, jàppale leen à travers la maire mm-hmm. parce que y a les y a les y a les de fem mm-hmm. bien vrai que regroupé wuñu mais aussi c'est des populations mm-hmm. jox leen ay gel jox leen ay ay ay ay ay kotol ay eau de javel pour que ñu mën a xeex en fait surtout su prévention bi euh, maladie bi bañ a yegsi parce que maladie bi comme niñ ko xamee niñ koy déggee aussi prévention rek moo na ci mën a génne. Mhm. et puis am benn benn ay ay élément de veille cellule de veille boo xam ne fépp foo xam ne am na ay ay ay ay ay ragallu nga xam mhm. ne am na ñu dem xool ko jàmbar ko mhm. mën a di junj à chaque instant population bi population yi aussi dañu war a jàppale ci mesures yooyu parce que tey di y a des inter interdictions yoo nga xam ne ay regroupement je pense que ñun tamit ñu ngi veiller ci loolu police tamit mi ngi veillé ci loolu à travers euh, commissariat quatrième bu Médina mhm. ñi ngi veillé ci loolu bi nga xam ne on appelle encore une fois dañuy mhm. woo population yi pour que ñu respecter mhm. ces mesures parce que tey di phase bu ñu toll ci virus bi au début c'était des cas importés mais tey di à travers le ministère de la santé jàpp nañ ne tey am na des cas yoo xam ne. communautaire communautaire yoo mhm. xam ne c'est entre échange. Mhm. nit ak nit ñoo ko joxe yoo xam ne. xamuñu fu ñu jugee xamuñu fu ñu jugee. Mhm. ça devient dangereux donc loolu su amee. da ngay jël ay dispositions yu bees. mettre en place des dispositifs yi nga xam ne dina. empêcher mhm. nit yi di regrouper et mhm. puis di leen ñaax à chaque fois ñu ay mesures d'hygiène yi nga xam ne ministère de la santé moom la teg mhm. ñu koy appliquer structureusement parce que loolu aussi dafa am solo parce que virus bi li tax mu dangereux du fépp la mun a ñëwee c'est-à-dire du si manax yow kase mun na jaar ci ay billets mun na ku infecté mun na laal fenn nga ñëw laal fa donc loolu yëpp mooy pousser à ce que kon ñu am ay mesures drastiques yoo xam ne ñun war nañ ko jël en tan que population mhm. pour prévenir face à cette virus qui mhm. est une virus dangereuse li jëm ci euh, bàjjanu gox yi ak mhm. ñoom imaam yi ay relais lañ yoo xam ni ñoom euh, mën nañ jaar ci maire bi ñu jox leen xibaar bi ñu wasaare ko ci li nga xam ne moom moo jëm ci askan wi ndax loolu impliqué ngeen leen ci imaam yeeg bàjjanu gox yeeg AIC yi surtout nga xam ni jamono ji football amul amultul ci coronavirus bi moo ko lompañ tey ndax ñooñu itam bokk nañ ci ñi nga xam ni ci xeex bi yéen mairie yi war ngeen leen ci dugal au delà de ça interdi interdiction yi nga xam ne nag njiitu réew mi teg nañ ko yéen est ce que mënu leen dem au delà yenn yi nga xam ne nag moom moo di bërëbu jaaykaay kafe yeeg trottoir yi bu ko defee ñu wàññi ko mën a xam ni liy yoot askan wi nag lu metti la faaw ñu jukk fajaru fàggandiku mhm, effectivement bon soo soo ma dégloo au mhm. début xam naa la le lendemain du 14 mars mhm. maire dafa convoqué mhm. euh, un conseil de municipal extraordinaire mhm. convier euh, les délégués de quartier amoon nañ fa représentant imam yi amoon nañ fa représentant bajanu gox yi amoon nañ fa représentant oh, mais également ASC yi amoon nañ fa représentant pour ñoom à leur niveau ñu mun a porter combat bi combat bi bon c'est ce qui a été fait ba tey ji ah, bon ba ci vendredi bi peut-être vendredi bi. Mhm. mesure d'interdiction de mhm. prière à la mosquée moom moo ñëw. Mhm. mais imaam yi dañu doon ko wax ci xutba bi. di sensibiliser population yi. Mhm. je pense que ñun ñi ñu ngi liggéey en parfaite collaboration avec mhm. nos relais. Mhm. parce que ñoom ñoo ñi nekk relais ñi nga xam ne ñoo nekk sur le terrain. te maire aussi bu amee xibaar aussi daf leen niveau partager sa ak ñoom. ñu jox ko seen xalaat et puis ñu xool yan kano information la ñu war a mën a utiliser. pour que mu mun a dem ci population yi. Mhm. donc je pense que loolu aussi. Mhm. lu ñuy rafetlu la di gërëm également les bàjjenu gox ak imaam yi nga xam ne. Mhm. ñoom population bi ñoo leen fi nekkal. te bon vraiment euh, ñi ngi def seen liggéey comme ni leen ko xaaree. bu ko defee rek mbokk yi euh, yéen a ngi euh, suivre émission gox bi 88 la 628 84 84 wala 88. vingt 628 85 85 wala 88 628 86 86 mun ngeen dugg itam joxe seen xalaat ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci émission bi ca la nga xam ne nag moom la ñuy waxtaanee tey moo di Fass Colobane gël Tapée mu nekk ngeen yor benn commune boo xam ne su mun naa ko wax dafa jiite Fass Colobane Gueule Tapée yéen tey naka ngeen def. ba boole link yooyu yëpp ngeen mën a doxal seen liggéey te du am benn mën a am benn gàllankoor ci li nga xam ne moo jëm ci gox yeeg goxaan yi. waaw xam nga li nga wax ni dëgg la commune Gueule Tapée Fass Colobane dafa nekk commune boo xam ne dafa am spécificité <laughs> mais tey jii euh, le maire en toute intelligence mi ngi mi ngi mi ngi xool mi ngi koy utiliser aussi. Mm-hmm. Euh, nu mu mën di waxee. Euh, ñetti gox yëpp. Mhm. à travers lu ma la wax léegi les bàjjanu gox. Mhm. les relais parce que Fass am na ay bàjjanu gox. Gueule mhm. Tapée am na ko. Colobane aussi même chose des imams. chaque fois bu laajee ñu toog waxtaan wala am information bu ñu war a jàllale dañ leen ni woo ñoom ñëpp ñu ñëw toog. ñu jox leen la bonne information. après ñoom. dañuy dellu ci population bi utiliser leur canon pour mm-hmm. popula mën a yeggee ko population loolu benn benn benn yoon la si bu ñuy utiliser mm-hmm. aussi yaa yaa les yaa les la la presse mm-hmm. maire aussi lu muy def aussi day fay woo la presse pour pour wax ko décision yu mag yi pour jàllale ko et puis y a les groupes euh, les groupes WhatsApp nga xam ne euh, commune bi bari na ay groupes yi nga xam ni bon vraiment euh, association yi de famille de jeunes yi ASC si lañ bokk dañ koy utiliser aussi. Mhm. pour jàllale ay information mhm. mais des fois aussi dañ dañ day day jar ñu jël suñu L200 def ci sono. Mhm. def wut benn benn kii boo xam ne dafay ànd ak oto bi pour. Euh, yeggee population bi information bu ñu bëgg mu yegg je pense que loolu kase du du doy yombul yombul et puis dinañ on continue ah on continue chaque fois à le faire et puis bon mënoo am cent pour cent mais euh, je pense que Euh, lu ci gën a am solo mooy nga koy def et puis di parfaire. Mhm. je pense que mairie bi aussi képp koo xam da nga bëgg information aussi boo ñëwee ci mairie bi tamit mhm. am na bureau boo xam ne dañ ko créer spécifiquement pour loolu. Mhm. boo ñëwee ñu jox la sa information bi nga bëgg par rapport ak domaine bi nga bëgg donc euh, noonu lañ noonu lay def pour. Euh, pour vraiment essayer de coordonner nga xam ne mooy Gueule Tapée Fass Colobane. ndax jumtuwaay yëpp mu ngi fa. jumtuwaay yëpp ci wàllum liggéey bi ak ba ci ñetti communes yeeg yenn ci gox yeeg goxaan yi ndax lépp jumtuwaay yëpp noppi na mi ngi fa. waa jumtukaay yi bon xaw ma lu ngay wooyee. Mhm. maanaam la nga xam ne nag moom moo jëm ci relais yi information yi bu yeggee ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi naka lañ koy mën a jàppee li nga xam ni moom moo jëm ci information yi. waaw jàpp naa ne tey jii jumtukaay yooyu yem na parce que bàjjenu gox yi ak imaam yi ak ASC yi vraiment ñu ngi jàppale ci côté boobu. bu baax a baax. Mhm. ak yeneen relais yi ñu ngi jàppale ci yenn information yi population yi mun ko mun ko jot. Mhm. mais lu ci gën a am solo mooy euh, commune bi dafa am spécificité comme ni ma la ko waxee. donc mhm. ay décision yu bari euh, dañuy bëgg di ko toog di ko waxtaanee. même en conseil municipal. dañuy convier toute la population. ñu ñëw ñu toog ñu déglu ñu déglu xool. suñu dem séminaire d' orientation à sali dañuy mhm. convier les associations les imams ñu ñëw ñu toog mhm. ñu xam ne aussi dañ ñoo fal jox ñu seen kàddu mhm. pour ñu représenter leen mais sans ça n'empêche en rien que lépp lu ñuy jëlaat encore comme décision ñu waxtaanee ko waat encore gestion participative donc loolu aussi baax nañu ñu souligner ko euh, gis nañ ne aussi ñoom aussi ñu ngi jàppale le maire euh, la mairie bu baax à travers le maire parce que ñu ngi ñëw di waxtaan a moom. Mhm. Eh, ci ay seen ay préoccupations nga mhm. xam ne maire euh, lu mu ci mun dina ci taxaw. ndax koppar gi ngeen di voté rek. Euh, mhm. utiliser ko war ko liggéeyee ndax léegi euh, loolu rek doy na. ci ci yéen ci commune bi ngeen mën a liggéeyee ci koppar bi ngir fa fàttali rek ne ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di maire yi dañuy am la nga xam ne moo jëm ci ay fonds de dotation ak yi ni mel. ndax loolu rek dafa doy rek moo di koppar goo xam ne war ngeen ko mën a liggéeyee wala des na. soo xoolee soo damay jàpp ne des na parce que tey jii acte trois de la décentralisation bi mhm. euh, ñun par exemple dañ ñu en ville de Dakar daf ñu envoyé ay agent yu bëri mhm. yoo xam ne c'est la ville qui les payait avant mhm. mais tey jii mairie bi moo leen di fay te du ay salaires yu ndaw je pense que de deux 2014 ba tey jii mosoo dégg benn agent bu génn ne commune Gueule Tapée Fass Colobane ñu ma donc c'est pour vous dire que tey jii le maire fait tout pour maitriser ngeen ko gérer les salaires on l'a maitriser mm mais soo xoolee tamit salaire yooyu aussi pratiquement moitié du budget moo koy jël moitié du budget moo koy jël mhm. te quand même c'est c'est des dépenses obligatoires te mhm. soo xoolee euh, wàllu prise en charge yooyu tey jii mairie bi en en dépense presque douze millions par an mhm. ci loo xam ne ay prise en charge parce que aussi il faut assister les populations am ñoo xam ne dañuy feebar war a dem def opération Dantec du ñu am lu ñu ko fay ah, jàppale waaw Abass Ndao même chose donc mhm. loolu aussi si la bokk mhm. des produits pharmaceutiques parce que tey jii aussi da ngay gis koo xam ne day dem hôpital ñu jëndal ko ordonnance amul lu mu fayee mhm. il est obligé ñëw ci mairie bi il faut ñu jàpp ndimbali daal mi ngi fa ndimbali il faut ñu bien vrai c'est difficile mais euh, euh, ñi ngi def daal suñu képp laaj nga xam ne bon population yi si loolu la ñuy xaar te yemul foofu kafe mhm. parce que tey soo xoolee dans les écoles aussi mhm. am na ay appui yu fay dem parce que les fournitures scolaires aussi ñu nañ ciy jàpp chaque année mhm. et puis euh, muy koor muy muy muy tabaski aussi dañuy jënd ay denrées koor chrétien yi waaw koor chrétien yi aussi instant yi déposé nañ ba pare bu clôturé nañ dañ leen nar a jox euh, benn soutien financier boo mhm. xam ne pour ñoom parce que ñoom aussi si lañ bokk mhm. tabaski aussi bi nga xam ne yombul waaw yombul yombul mhm. yombul mais on est obligé parce que bon ñoom aussi seen fête religieuse la. Mhm. il faut que. ngeen participer si en tant que collectivité ñu mhm. participer si. Mhm. Euh, def si lu ñu mun. ñu xam ne aussi suñu mënoon lépp def ko mais au moins dinañ def ba. nit xam ne on a fait des efforts dans ce sens. ok ndax euh, la recettes yi ngeen xam ne moom ngeen jëlee ci marché yeeg juuti yeeg. yooyu kon néew na kon nit ci la ngeen di am ak marché Colobane li ñu naan marché bu mag la. Hmm. ndax lu muy dugal bari na ci koom wala. bari na bariwul parce que marché Colobane tey jii soo xoolee dépense yu ñu fay def même buy dugal xaalis bari aussi xaalis bari daf fay duggaat encore. parce que aussi n'oublions pas que euh, l'éclairage mairie bi moo koy fay. entretien bi mairie bi moo koy jël en charge. Ah, ak disposition yëpp yoo xam ne dañ koy def foofu ci marché bi donc on est obligé de prendre ça en charge. donc mun nañ am foofu recette mais quatre-vingt pour cent yi day delluwaat foofu. Mhm. day delluwaat foofu. donc euh, loolu la donc euh, recettes yi moom mënul mënul doy ba ba mun a. Mhm. subvenir à toutes nos charges. ok waaw mais bu ñu leen indee itam ci mm. mairie. Mm. Euh, da ngeen war a itam définir ay politique yoo xam ne dinañ tax da ngeen mën a am ay koppar. Mm. ndax yéen ci wàll wi ni mel yéen a ngi def jéego yooyu. Oh, bu baax a baax parce que tey jii soo xoolee côté boobu on a def nañ loo xam ne tey jii mun naa wax ne amul benn commune. boo xam ne def na ko def na ko bu ko réussir mhm. avec FUNIAP euh, FUNIAP mhm. tey euh, est en train d'injecter mhm. quinze milliards sur cinq ans dans la commune de Gueule Tapée Fass Colobane loolu te tey jii quinze milliards yooyu li tax mu intéressant moom daf koy jël di ko dugal ci ay secteurs yoo xam ni ay secteurs porteurs cest à ay secteurs yi nga xam ni nit yi si mun a basé wu pour mun a dem vers l'émergence ok soo xoolee poste de santé bi dañ ko ñoom ñoo koy tabax mm-hmm. dañ ko dañ koy ériger en centre de santé mm-hmm. bu moderne boo xam ne mm-hmm. képp koo xam ne da nga bëgg accouchement wala nga nga defee ko foofu ci biir post bi sa centre bi donc loolu lu am solo la lu am solo la en plus de ça ñu ngi tabax benn benn usine de transformation pour les femmes nga xam ne toutes les associations de femmes vont se retrouver la bas mhm. di def seen activité et puis di jaay seen produit nga xam ne vraiment dinañ mën a tendre vers l'émergence mhm. ak yeneen projet mhm. centre ado pour les jeunes. parce que aussi dans nos communes là il y a beaucoup de jeunes il faut les sensibiliser yedd leen ci ci la l'histoire des drogues euh, les euh, les grossesses précoces et autres donc centre bi mi ngi fonctionner mi ngi mi ngi fonctionner bu baax en collaboration avec les bajenu gox ñi ngi informer sensibiliser les jeunes bu baax vraiment je pense que loolu lu am yooyu teg ngeen ko ba pare wala non non commencé na commencé na centre bi poste de santé bi soo ñëwee gis ngeen ne ñu ngi koy tabax boo demee aussi au niveau de Mangué di nga gis usine de transformation bi aussi ñu ngi koy tabax. Ah, donc mhm. loolu aussi euh, lu ñu war a kii la parce que seen aussi. Mhm. mi ngi euh, jàppale parce mhm. que il faut dire aussi que. dafa am du ñu jàppale ku nekk dafa am ay nombre de de de de dispositions. de mm -hmm. conditions yi du ñëpp ñoo am bokk ci pakaseen bi. dañu ciblé. waaw parce mhm. que. Mhm. dafa amoon ay conditions yu ñuy laaj. Mhm. te conditions yooyu suñu mairie daf ko daf ko. mataloon mataloon moo tax ñu dugal ñu si. bon loolu yëpp c'est c'est de bonnes choses parce que. ak PACASEN bi day permettre ñu utiliser cet argent pour mmh. la voirie. yi mhm. pavé koñ yi. Mhm. parce que aussi il faut dire que euh, suñ commune surtout Fass dafa mhm. bari suuf. donc euh, euh, désensablement bi lu amoon solo la lu population yi soxla woon la te je pense que maire mi ngi ciy dox te à travers aussi actes mhm. yu ñuy jël nii on est mhm. en train de vraiment mhm. d'assainir euh, toute la commune de Gueule Tapée Fass Colobane mel na ni kon yéen xaaru leen yéen a ngi uti ay partenaires ngir mën a suqali seen gox kon euh, toogu leen xaar te mel na ni su ma la déggee maanaam neen perspective mi ngi ci gox bi te yéen a ngi ci dox ay jéego waaw waaw effectivement parce que euh, lu ñuy xaar ci yeneen partenaire bari na. Mhm. ay partenaires bari ñëw nañ xam nga partenaires yi dañuy boo xoolee ñu partenaires yi di doxalee. dañuy mhm. ñëw def benn échantillonnage. Mhm. bu ñu defee échantillonnage après nag ñu ñu développer étudier ko après nag si la ñuy def exécution bi. donc am nañ yaakaar que. vraiment partenaires yi euh, dinañu ñëw yu si jàppale lañu si ñi nga xam ne population bi ñu ko sas. ñu xam ne mooy. Euh, mettre la commune de Guet Tapes Fass Colobane vraiment ci mhm. ci ci émergence ok yaa ngi ko doon wax ndaw ñi jigéen ñi femmes yi ñi fay yeewoo daanaka bari nañ ñu bari dañuy soxla dem di wutali seen bopp ndax yéen yéen a ngi leen di accompagner au delà ci euh, li nga xam ne moo jëm projet yi nga xam ne nag junj nga ko fi mhm. léegi ndax yéen yéen a ngi leen di accompagner bu baax parce que mhm. le maire euh, chaque année dina génne lu toll ci cinq millions jox ko aux femmes. Mhm. pour les accompagner. Euh, ñu koy def genre revolving nga xam ne dañ képp ko am projet di nga mhm. mën a ñëw jël si fond boobu liggéey si. Mhm. te du am xàjj ak seen am xàjj ak seen. c'est pour toutes les femmes de la commune. loolu aussi lu am solo la parce que ku la wax ni mun na la wutal liggéey yëpp. bon nekk c'est impossible. mairie bi lu mu mun mooy euh, accompagner les femmes. former leen. Mhm. surtout la formation des femmes c' est important. parce que koy def ñoo mhm. euh, mhm. pas d' avoir de l' argent parce que mën nga am xaalis doo xam looy liggéey. wala nga am xaalis dugal ko foo xam ne waroo ko fa dugal. on les forme sur la gestion. ñu xam nu ñuy et puis sur des porteurs des projets. ay tuyaux yoo xam ne ay. projet porteur yi nga xam ne suñ fa defee seen dërëm mhm. dina mun a jur lu bari mhm. donc je pense que loolu mairie bi mu ngi koy def mi ngi mhm. koy def actuellement di accompagner bu baax euh, ndaw ñi femmes yi ndaw yi également ñu leen di accompagner parce que FUNIAP ñu ngi suñu troisième session de formation yoo xam ne dañ ko jagleen woon ndaw yi nga xam ne euh, dañ leen di ci ay ñu mun am seen atelier di defar ay portable am le matériel. am mhm. benn budget boo xam ne moom la ñuy démarrer. Mhm. donc euh, yooyu yu bari am na fi. Mhm. Euh, donc chaque ay session la. et puis am na yeneen projet yoo xam ne bon mi ngi mi ngi mu ngi génn parce que on doit aussi accompagner des jeunes pour ñu am ay permis de conduire parce que aussi loolu rek la mairie mun parce que dimba accompagner leen ñu mun a demal seen bopp ñu mën a demal seen bopp ñu xam ne aussi mhm. euh, affaire yi noonu la quoi et mhm. puis euh, les handicapés mhm. les associations est-ce que askan wi ñoom xam nañ ni euh, mairie bi mënul jox ku nekk waaye accompagner lañu xam nga des fois itam da ngay def gars dañuy jàpp ni ñoom mën yéen mën ngeen te or yéen da nga leen di wax ni dañ leen di jàppale mais duñ ko gëm mais dañuy jàpp ni yéen mën ngeen ko est-ce que yéen ngi def ñoom si seen bopp que ni mairie bi mënul dugg jox ku nekk waaye accompagner moom lay ngay def. waaw ñoo ngi koy wax chaque jour le maire mi ngi leen koy wax chaque jour parce que benn mairie mënul jox ku nekk. c'est mhm. ça c'est impossible. Mhm. Mm. tey jii lu ñu mun juste mooy euh, bu amee lu ñu war a mun a accompagner. Mhm. su ñu waree teg benn projet ñu teg ko ñu woo les yi nga xam ne moom moom la intéressé ñu woo leen. former leen dugal leen ci projet boobu accompagner leen. je pense que loolu lu am solo la et puis loo xam ne je pense que comprendre nañ ko. parce que loolu la mairie bi mun tey mais mairie bi amul moyen yu mu mën di jël di jox à chaque personne kooku kooku ku la ko wax dalay nax hmm. ñi ngi def suñu kentalaay kàttan le maire mi ngi def ay kentalaay kàttanam pour hmm. ay partenaires yi nga xam ne yenn domaines yi dinañu si mën a jàppale je hmm. pense que partenaires yi ñu ngi koy siy wiw si et puis di jàpp ne loolu franchement loolu lañ mën a jàpp que tey ji euh, moom moo ñu mën a vraiment yóbbu fu ñu buggoon yóbbu fu ñu hmm. population yi bëggoon. dama fay faral di romb damay gis ni yenn station yoo xam ne fu ñuy gaaree oto. Hmm. soo ñëwee da ngay joxe sa xaalis maanaam gaare sa oto xaw ma yéen seen euh, li ni mel projet bi daxam yegg na foofu am déet. Hmm. si yi nga xam ne moom moo jëm ci voirie yi. pour rappel aussi que loolu noonu parking payant boobu ñun on a été la première euh, commune bi nga xam ne ñoo ko appliquer fii. au niveau de Dakar. parce que aussi loolu day régler deux problèmes mhm. bien vrai que di nga am benn dina am incidence financière parce que mhm. di nga ci am tuuti ay recettes yi nga xam ne dina dellu si mairie bi mhm. mais lu ci gën a am solo mooy da ngay lutter contre les désencombrements parce que oto yi aussi il faut qu'on les organise du waaye neex rek nga ñëw gaare dem sa yoon la voirie c'est pour les populations on doit l'organiser donc loolu aussi mi ngi dox bu baax. Mhm. mi au niveau de la commune. Mhm. parce que foofu laa ko njëkk a gisee waaw soo mhm. xoolee soo xoolee tey jii. vraiment euh, ça se passe bien. et puis euh, képp ku gaare aussi di nga am ay place yoo xam ne dañ ko def spécifiquement pour nga fay gaare. yaa ngi fay gaare. et puis euh, maanaam partenariat la daal. waaw non c' est c' par la mairie. c' est par la mairie on a une division spéciale boo xam ne mooy gérer la parking. et puis tey jii sa ça marche et puis on ñi ngi gis ay amélioration ci voirie bi c'est une bon chose mm-hmm. parce que aussi euh, lépp loo gis il faut que ñu organiser les populations mm-hmm. organiser parce que ñun ñoo ñëpp ñoo ko bàyyi ku mm-hmm. nekk bu defee lu la neex aussi du sotti il faut que ñuy des fois ñu arrêté wu def ay dispositions yi nga xam ne ñu dañ naan nii lañ bëggee mu doxee ñu dem ci sens boobu ku ñu doxee ko noonu ku doxeewul noonu nag après nga jot ay sanctions parce que Euh, c'est pas parce que euh, euh, euh, nit yi aussi il faut que des fois ñuy ñuy ñuy ñuy xool tamit l'intérêt général te bàyyi mhm. les intérêts personnels. Mhm. mais gox ba am na ay jafe-jafe de. comme yan lu si gën a jàmp tey dama ba xam gox ba am na ay jafe-jafe. mais gox yëpp am jafe <laughs> lu si gën a jàmp kon bon lu mhm. si gën a jàmp. mbirum assainissement sonalu leen. assainissement bi bon am nañ ci ay jéego ñu ci def. parce que soo xoolee tey lu quartier bu mel ni comme Colobane. bàyyi laay mhm. problème d'assainissement dañ ko mos a am mais euh, avec euh, l'ancien l'ancien bureau conseil euh, ab dirigé par mhm. Seyna bu moo ko tàmbale woon mhm. ñun ñuy yeggale ko ba yàlla def ñu assainir tey la mi donc c'est pas ça n'a pas été facile parce que xaalis yooyu mairie bi munu ko génnee mais au moins ñoom directive la boo xam ne projet boo xam ne mairie bi moo ko porté woon mais avec l'appui du chef de l'État loolu réaliser nañu ko. Mhm. tey soo xoolee problème majeur boobu la ñu amoon ci. Mhm. assainissement au niveau de Bayelaye le mhm. reste c'est bon ay petit problème la. Mhm. mun naa petit problème mais ay problème la parce que. taw bi def ñoo ngi ciy def ay jéego parce que mhm. taw bi. Mhm. fépp fu mu taw aussi day def ay ay ay inondation je pense que loolu aussi petit à petit. dafa am coût nag dafa cher. on demande souvent que l' état di ñu jàppale à travers. Euh, l'ONAS tawee ak euh, yi ñëw. kii ndox yeeg essence voilà énormément de moyens boo xam ne mairie bi amu ko tey benn. auto vidange ñëw videl la. Mhm. presque di nga ko fay deux cent wala deux cent cinquante mille francs par voyage. Mhm. te loolu mairie bi budget mairie bi mën na ko supporter donc petit à daal. je mhm. pense que euh, lu ci gën am solo mooy. Euh, est-ce que euh, jotul itam euh, balaa taw bi nawet bi di ñëw ngeen mën a euh, gën a defaraat li nga xam ni nag moom moo di koñ yeeg gox yeeg goxaan yi parce que taw bi bu ñëwee bañ leen sonal ndax yéen a ngi ciy xalaat. waaw waaw ñu ngi xalaat bu baax. Mm-hmm. parce que pré-saison mm-hmm. avant avant taw bi dañuy nettoyer avec avec l'ONAS les mooy égouts yi dañ koy nettuwaay ba mu set. Mm-hmm. et puis euh, désencombré nga xam ne voies yi nga xam ne ndox yi dafay jaar mhm. parce que bu ñu fàtte ne aussi canal 4 aussi mhm. mi ngi à côté mhm. mu mënu mënuñu comprendre canal 4 nekk à côté après ndox bi di stagné wu au niveau de Fass wala de Colobane wala de Gueule Tapée ah te war a mun a dem directement parce que loolu aussi l' état moo ñu ci war a jàppale bu baax parce que pour dire vrai euh, installation yi dafa yàgg installation yi dafa yàgg te des fois dafay baax aussi yi ñu reprendre Mm-hmm. parce que aussi euh, densité population bi dafa yokk. Mm-hmm. avant c'était y avait moins de population mais te jii population yi dañuy yokk et puis euh, du coup ça dafay am répercussion sur mm-hmm. euh, l'assainissement. donc de temps en temps aussi on doit l'État doit nous accompagner. ci loolu xool assainissement yi xool yu vétustes yi ñu changer ko. nga xam ne vraiment yenn problème yi dootuñu ko mën a di am mais je pense que petit à petit. Mhm. bon je pense que ça se fera incha allah. Mhm. mais li nga xam ne moom moo jëm ci Fass Colobane Gueule Tapée terrain yi tamit euh, fu ndaw yi di mën a defee. Mhm. mbirum tàggat yaram mel na ni lu fa tumuranke la de. non tumuranke fa parce que tey jii suñu suñu projet bu njëkk bu ñu def. te on l'a fait. avec le conseil municipal mooy euh, la place de l'obélisque. ñëpp ñi ngi fàttalikoo problème bu amoon entre mhm. la place de l'obélisque la place de l'indépendance ouais. mais le ministre en personne mm -hmm. il maire ñu am gage conseil municipal de Gueule Tapée Fass ñu jox ko aval mu defar ko mhm. donc loolu tey jii bu fekkoon ñun mhm. am nañu woon beneen gis-gis du ñu dem ci sens boobu mais dañu jàppoon ne lii hmm. moo gënoon pour population. ok ndaxam foofu tey euh, ba ngeen ko defaree ba pare ndaw ñi ñu ngi ciy tàggatu wala ku ci fubal da ngay fay. waaw tey jii. Hmm. am na foofu terrain multisport dañuy gis lay tëju rek. non du tëju am na terrain multisport. Hmm. am na ay toboggan pour les enfants. mais xale yaa ngi koy fréquenter. bien sûr mais terrain bi laa wax. moo terrain bi. dafa am euh, état benn projet bu mu ci bëgg a def. bu mu ci bëgg a def avec les Jeux olympiques là ok waaw bon phase test la nekkoon mhm. parce que gazon naturel moo fa nekkoon mhm. gazon naturel moo fa nekkoon dans un premier temps dañ ñëwoon après dañ koy def gazon synthétique mhm. pour euh, permettre aux jeunes ñu fay kii mais le terrain les les autres terrains sont utilisés terrain basket bi ñu ngi koy utiliser et puis euh, waa commune bi euh, ñu ngi koy utiliser xale yi commune bi aussi ñu ngi dem ci place bi képp ku dem ci place place bi nu mu meloon ah nu mu mel léegi ça fait deux. loolu aussi ci. yéen a yor euh, gestion bi daal waaw gestion bi presque ñun ñoo ko yor. parce mhm. que maire ak à travers son conseil municipal bu ñu si d'accord woon. Mhm. amaana loolu du am. du si mais dañu teel am gis-gis. Mhm. lii nii ñu bëgg a def nii c'est pour les populations donc. dañ ko war a def moo tax moom mu jël matukaay yépp. avec le ministère du cadre de vie qu'on mm -hmm. remercie au passage ñu jàppale ñu si projet ba ñu mhm. réaliser lu ñu loolu mhm. parce lu tax ma wax loolu parce que romb des fois place de l'Obélisque euh, place de la nation da ngay gis ci kaw karo euh, euh, bi foofu noonu dañ fay fubal moo tax da ngay gis terrain bi dañuy gis mu tëju mais ci boo fa rombee dañuy gis ay ñi fay petit loolu waaw d'accord loolu mhm. aussi mënul ñàkk

tout ça okay. et puis nga nga ñëw nga utiliser ko nga bàyyi ko mm-hmm. à l'état aussi bañ ko yàq mm-hmm. parce que loolu aussi lu am solo la parce que boo ko mm-hmm. entretenir aussi day day dégradé su dégradé wu yàq na pour abonder dans le même sens face au face okay. face aussi le maire a réalisé là-bas un terrain de basket terrain de basket mosu fa am réaliser terrain de basket ba am équipe boo xam ne équipe basket boo xam ne bu commune bi dem na championnat ba mm. am sax titre. ok donc loolu aussi. Mm-hmm. <laughs> c' est de bonne chose encouragé ko quoi c' est de bonne chose. Mm-hmm. terrain bu mag bi. Mm-hmm. daloon taa tout le temps. mais maintenant taawatul parce que def nañ fa ay travaux. Euh, yoo nga xam ne terrain bi même bu tawee ak quantité bu mun toll. à quarante minutes. day wàcc day wàcc. donc euh, def ci tribune loolu aussi. ay avancées la ay mhm. avancées significatives la yoo xam ne. mel na ni euh, Fass Colobane Gueule Tapée mi ngi tendre vers l' mais effectivement parce que mhm. loolu moo ci gën a am solo. parce que mhm. émer tendre vers l' émergence juste da ngay teg ay ponk yoo xam ne ay jalons. yu la ciy yóbbu. te jalons yooyu teg nañ ko. te ñu ngi ciy dox. donc euh, foofu lañ toll tey te am nañ si yaakaar bu baax. et puis que euh, maire jalon yooyu mu teg dinañ ko réaliser incha allah ba population yi. ba te wóoluwaat ñu. Mhm. Ah, donc dinañ ci ñëwaat mais yombul de projet yi di ko taxawal ndaxam euh, bi ngeen taxawal place de la nation ndax yeneen itam yéen a ngi koy xalaat ci yeneen gox ak goxaan yi. effectivement parce que aussi euh, mënoo def dara foo xam ne amul espace. ok commune bi soo xoolee yu bëri euh, problème mu Colobane ak problème fas bokkul. Mhm. Colobane tey soo xoolee am na benn projet boo xam ne mi ngi en construction boo xam ne financé par la mhm. mooy benn benn maison de de de la femme. boo xam ne mhm. mi ngi nekk Colobane boo xam ne bépp association boo xam ne soo bëggee réunion wala nga organiser. fa ngay dem foofu. Mhm. mi ngi en construction. ok donc bàyyi laay problème la woon avec l' assainissement. on l'a réalisé. donc. Euh, ak place de l'Obélisque aussi si ci ci ci Colobane la bokk donc mhm. tey jii lu des mooy juste désencombré mhm. ko ñuy leer mhm. véhicules yu vétus yi ak ñu dindi ko et nit yi mun a mun a circuler en toute euh, cet cet setal bi nga xam ni nag njiitu réew mi annoncé woon na ko ndax xam yéen itam da ngeen xaarul woon appel bi wala yéen da ngeen yàgg a defal seen bopp li nga xam ni moo jëm ci set setal gi non dañuy yàgg defal suñu bopp ci set setal bi quand su président de la république euh, joxe initiative boo xam ne ñëpp a koy gën ko jëmmal euh, quoi dañ koy gën a jëmmal parce que mhm. set ñëpp a ko bëgg ok set dañu war a set partout dans les bureaux dans les maisons mhm. partout partout mhm. dañu war a set parce que aussi Euh, c'est pas que coronavirus bi rat mm -hmm. mais set dafa baax ci nit les gens dañu war a jël ay tàmm ay mesures pour di set bañ a di def loo xam ne vraiment day andi ay feebar ok l'islam muy dafa bëgg set mhm. boo setul set dafa am lu bari lu mu ëmb donc tey ji su président de la République lancé les mhm. communes pour ñu am journée boobu mhm. dañ koy rafetlu suñ ko gënee mun a dooleel ñu dooleel ko parce que vraiment ñun rek ñoo ci am njëriñ population yi ñoo ci am matériel ya ca war yéen jumtuwaay génn ngeen ko ngir jox ko askan wi tamit ñoom ñu approprié wu li ni mel bu baax parce que tey ji euh, pour ce qui est matériel de dotation yooyu yëpp mi ngi fa. Mhm. ay brouettes et tout. Mhm. képp koo xam ne bëgg nga organiser wala bëgg nga def set setal. Gueule mhm. Tapée la semaine dernière ñu ngi doon def. opération bu mag. le maire Ousmane Doye daf leen appuyer. financièrement jox leen euh, matériel ñu liggéey. ba tey soo fa demee di xam ne vraiment fii nii. Euh, vraiment ñi ngi respecter euh, l'orientation du chef de l'État bi nga xam ne mhm. dafa jagleel benn jour spécialement dédié mhm. euh, ku nekk nettoyer sa gox donc loolu aussi ñoo ngi ciy dox bu mhm. baax a la déggee tey kon ci xayma bu ñu doon def bilan mun nañ ne soixante quinze pour cent yi réaliser ngeen ko ci ci seen commune boobu oui oui soixante quinze pour cent est-ce que ëpp ko sax parce que tey commune bi fu ñu ko jëlee dafa sori nit yi il faut que ñu comprendre loolu te le maire euh, mi ngi def ay ay jéego. pour mhm. yóbbu commune bi benn niveau. Mhm. léegi nag lu ñu lu ñu mën ak suñuy pexe la ñuy def. parce que lépp mënoo ko def. Mhm. benn benn temps. tey soo xoolee tey di muy ay élection présidentielle ay kii nit yi dañuy falaat nit yi pour ñu yeggale seen parce que xam nañ ni. temps bi dafa ndaw pour nga mën a réaliser tous tes projets. donc boo réaliser. après nga amaat temps. Mhm. nga continuer ci orientation yi nga xam ne moom nga définiroon à mhm. l'avant mhm. parce que loolu aussi dafay am solo. parce que boo tegee ay jalons pour dem fenn. boo ñëwee da ngay continuer rek. mais boo bëggee ñëw changer jalons yëpp pour defaat. tey laaj temps bu bari te loolu arrangé wul population yi. je pense que lu ci gën a am importance mooy tey am na lu ñu teg. maire mi ngi koy continuer mhm. on va aller de l'avant okay. on va aller de l'avant on va faire le mhm. maximum pour mhm. que vraiment gën a duggaat ci partenaires yi rek duggaat ci nga xam ne population yi euh, confiance boobu lañ ñu joxoon pour fal ñu ñu ñu ñu ñu ñu delloo leen confiance boobu ba ñoom ñu gisee seen bopp ne ci secteur yëpp am na ay jéego yu bëree bëri bëri yu ñu si def mhm. muy éducation mhm. parce que si bilan la bokk aussi bien sûr éducation muy mhm. santé muy euh, euh, social parce que social bi aussi dafa am solo euh, soo xoolee pat ak ak tabaski ret mënuma la wax ñaata million la ñuy génnee on dépense plus de soixante à cent millions par an ci loolu jàppale ko askan bi mais pour revenir juste que aussi munoo jox ñëpp encore une fois mm-hmm. dina am ñoo xam ne di nga leen léser aussi nañ comprendre ne aussi di woon yéene mairie bi ñu léser leen mm-hmm. mais euh, on peut pas à tout le monde okay. et puis euh, ñu jàpp ni peut-être ñii suñu amee ren déwén neneen am mm-hmm. et puis ñu xam ne ñooñu ñu ko soxla lañ te on est conscient que ñoom soxla nañ ko parce que ñu ko soxlawul woon dañu ñëw di déposer à la mairie mais ñoom aussi ñu comprendre que ñun aussi euh, nit ñu ngay nu nga lu nga am lañ ngay demee marché en fait lu ñu am moom lañ mën a partager Euh, delloo population ñu xam ne mhm. les autres recettes dafa am leneen feneen fu mu war a dem mhm. yoo xam ne prévu dans le budget parce que mhm. budget bu nekk ak rubrique bu ci nekk rubrique boobu moo lay permettre nga def ay dépenses yi nga xam ne ci ci domaine boobu la jëm donc ñu xam ne aussi loolu la conseil municipal bi de jox maire pour mu dépenser ko si population yi su jeexee xanaa xanaa ay entreprise sanc ñu fa waaw ay entreprise ñi ngi fa mhm. mais. Euh, taxut am doole noonu xam na mhm. am na ay entreprise yu am doole mais mhm. bon. mais ndax ñu ngi participer ci RSE bi. waaw bon RSE bi bon vraiment bon. participation financière moom bariwul vraiment mhm. pour dire vrai mhm. mais on est en c'est des collaborateurs mhm. lépp lu ñuy def aussi ñoom dinañ ci dinañ leen si gis seen présence loolu lee loolu déjà tamit neex na mais suñ su munee aussi di si participer financièrement c'est une bonne chose parce que lépp lu ñuy xeex lépp lu ñuy kii c'est c'est pour ñoom la parce que tey jii soo xoolee tey benn entreprise bu mel ni SAM tey mesure bu maire def interdire les Euh, commerçant ñu jaay foofu aussi day day day arrangé sam donc ñu mhm. xam ne on est en on est en collaboration. ñu yokk koppar gi ñu euh, dugal. on est en collaboration. ñu mhm. xam ne vraiment mairie yi amuñu doole. et mhm. puis euh, képp koo xam ne entreprise nga. soo boo mhm. bëggee appuyer nga appuyer. nga jàpp ne rek ne lii nii day delluwaat ci population yi. donc loolu la nekkul li yéen lay jëriñ rek mais askan wi lay jëriñ. non mënuñu jëriñ ñun kase. <laughs> Euh, non c'est pas que daf ñuy jëriñ. parce que ñun askan bi moo ñu fi. ñoom ñu comprendre que noonu quoi je veux dire que ne yéen du pour yéen. mais li ngeen di voilà euh, ça peut plusieurs formes. repas. Mhm. yoo xam ne day dem ci élèves yi. Mhm. Euh, est ce que yéen itam yéen a ngi yéen a ngi leen di ñaax ci li ni mel quoi aussi tam. waaw ñu ngi leen di mhm. ñaax mais xam nga booy booy booy nit ki su nekkee sa partenaire aussi day xam ne sa partenaire la. mënoo ko di ñaax tout le temps ci benn kii mel ni comme si yow loolu kase moo la intéressé si moom mhm. des fois da leen bàyyi ak seen xel ñu xam mhm. ne euh, ñoom am na lu ñu war a def am na lu ñu war a participer si gox bi mhm. ñu participer ke ku képp ku nekk fu mu nekk par rapport ak lu mu am ak que ce soit financier et matériel mm-hmm. mais nga participer que mm-hmm. bon je pense que du yàq dara daal du yàq dara parce mm-hmm. que ci gox bi lay dellu et puis euh, commune moo demee noonu c'est-à-dire commune dafa laaj euh, nit yi di impliqué wu partenaires yi ñëw di ci jàpp pour parce que l'état aussi munul euh, moom ndax ndimbalu état bi itam doy na ndimbalu état bi doyul mais état bi aussi dafa bari charge état bi dafa bari charge parce que aussi état bi mënul mënul régler problème ñëpp. Mhm. mënul régler problème ñëpp état bi bu mu mën mi ngi koy def bon sauf que bu mu nee gën a jàppale commune rek mu jàppale ba mhm. xam ne ne. Mhm. tey jii pour nga atteindre une mairie moo gën a yomb. pour nga dem. au sommet waaw au sommet. parce que tey képp population bu sonn lu muy njëkk xalaat. dem à la mairie bu amee garab. mënu ko jënd mu dem à la mairie su amee problème loyer mu dem à la mairie buy ngénte mu dem à la mairie bu amee problème donc mhm. waaw donc mm, les mairies dañoo euh, loolu aussi dafay dafay diis. dafay mhm. diis si mairie. Mhm. mais nit yi comprendre que rek ñun. ñoom est-ce que ñu ngi koy ñu ngi koy comprendre au-delà des recettes que nous avons. ok ci sur cette base boobu rek lañ mun a aussi jël xaalis bi delloo leen ko. mënuñu def au-delà. ñu comprendre ko noonu xam ne aussi metti na. et puis euh, on on va les soutenir on va continuer à les soutenir. à travers le maire Ousmane Doye di leen jàppale ci. bépp action boo xam ne mun nañ leen ko defal boo xam ne vraiment dina leen amal njëriñ te dina leen jàppale. ndax communication bi mu ngi dox entre askan wi ak la nga xam ni moo di mairie bi parce que lañ neen lépp ci communication bi la yob bu ñàkk déggoo amul amee rek euh, du neex quoi ndax communication bi kon mi ngi dox bu baax. waaw mais comme moom laa lay wax sànq. Mhm. lenn mënul dox à cent pour cent. Mhm. lu ci gën a am solo mooy euh, ñoo ngi def suñu ay. kéemtulaay kattan. Mhm. pour jéem a communiquer avec les populations. Mhm. surtout sur plusieurs plans. Mhm. Euh, parce que moom laa lay wax sànq dañuy utiliser ay imam yi. bànqaas yi quoi bànqaas yi ay relais yi. nga xam ne relais yi si boppam mairie bi danañ euh, euh, jël en charge. pour ñu mën a di jouer rôle boobu. les délégués de quartier. nga xam ne aussi. mairie bi danañ jël en charge pour ñu mën di jàppale mairie bi si tâche parce que la mairie à elle seule mënul mënul yegg fépp. il faut que mu am ñu muy mhm. ñu muy ñu muy ñu muy liggéeyal ñoo xam ne ñooñu mhm. ku ci nekk fi nga nekk mhm. en plus et les conseils municipaux fi nga nekk nga mun a porter une communication boo xam ne yow sa gox ñi la fal en fait euh, di ngeen mën a yàggale communication man de maanaam su ma la déggee mooy hmm. nañ leen bàyyi ngeen liggéey la ngeen def ba tey ñi euh, baax na waaye nañ leen bàyyi nga liggéey bu élection amoon fii tey maanaam daal euh, bu ngeen taxawee dangeen di jëlaat affaire yi non non non du ah. du du loolu xam nga hmm. tey daal li jot a wax fii wala de lu ci gën a am solo hmm. mooy képp ku ñëw ci commune bi yow nga nekk acteur dëkk ci commune bi boo ñëwee yow di nga constater. Mm-hmm. yow jalon yu ñu teg. Mm-hmm. je pense que loolu am solo la. parce que mun nga am yéene def dara te doo ko def. Mm-hmm. mais yàlla dimbalan ñu ba suñu yéene. yàlla mi ñu koy matérialiser la ah yoo xam ne danga koy laal. du lu abstrait gisal sa bopp da koy gisal sa bopp. ok loolu aussi lu am solo la. ça ne veut dire que on a on a été meilleur. def nañ la maximum. te on continuera à le faire. tey jii. même bu nekkul ñun keneen ku ñëw aussi di nga mhm. xam ni ñii am nañ fu ñu yóbbu commune bi ok bu nekkee ñun ñoo fi nekkaat aussi ñu jëlaat commune bi gën ko yeggale parce que objectif bi c'est ça mhm. c'est de tout faire pour que commune bi mhm. am émergence parce que émergence yi mi ngi commencé di sant di feeñ fépp tey jii résultat école yi les meilleurs résultats viennent de la commune ok l'IEF de Dakar Plateau chaque fois day primer non élèves c'est important ay signe la lan moo ko def il y a une volonté de de de de de la mairie d'accompagner les écoles primaires nga xam ni ñoom ci mairie bi lañ bokk. parce que lépp lu ñu mun ci ci ci ci ci ci pour yokk seen qualité. Mhm. enseignement ñoo ngi ciy dox. Mhm. ñoo ngi wut ay partenaires ñoo ngi ci loolu quand même c'est important. Mhm. ñoo ngi am échange aussi ñoo ngi waxtaan ak ñoom. je pense que loolu aussi lu am solo la. parce que waxtaan bi aussi day tax lu yu bari solution yu bari di génn. et puis euh, xaalis. réglé wul yëpp tout le temps. Mhm. des fois mun nga régler benn affaire tuddu xaalis. Mhm. Euh, nit yi toog ñu trouver solution et puis voilà. donc mhm. jàpp naa ne tey ji commune bi. mu ngi si mu ngi migrer vers l'émergence. parce que soo xoolee Fass tey ji ay route sablonneuse moo fa nekkoon. suñu régime. xeex nañ ba avec l'État. génne nañ ay route des na nag. des na am na yu des. mais quand am na yoo xam ne defar nañ ko yoo xam ne ay sable la loolu je pense que ñu am lu ëpp loolu ci ci ci collectivité mhm. au moment où nous mhm. acte trois bi ñëw les mhm. moyens sont les moyens sont sont rares les conditions acte trois ñëw yéen da ngeen gën a am doole les conditions difficiles suñuy pexe la pexe maire la mais conditions son difficiles mais malgré tout ñu ngi wut yoon pour génnee commune bi vers l'émergence mhm. yàlla dimbale ñu si wutal ñu ay partenaires yi nga xam ne tey jii gis nañ commune bi mhm. xam nañ xam nañ commune bi xam nañ aussi qualité ko mairie bi ñëw nañ aussi di ñu par rapport aux orientations définies par le maire loolu aussi lu am mhm. solo la mais euh. li ngeen fi ngeen jógee ak ba ñëw ba tey yegg si fii c'est pas été facile quand même il faut le dire non yombul yombul parce que déjà nit yi lu ñuy jàpp ak ak luy am du benn du benn. Mhm. il faut tout le temps parce que ñenn ñi dañoo jàpp ni sax Ousmane Doy ci nguur la nekk moo tax. waaw affaire yëpp yomb. waaw il faut nga leeral loolu euh, itam. loolu aussi. Mhm. Mhm. laa yow loolu aussi c'est un loolu aussi lu ñu jaral leeral la. parce que aussi population yi duñ la fal. ngay dem à l'encontre te luñ la tax ñu falee la ko. ça aussi dafa jar leeral parce que. le président de la République. mooy président de tous les Sénégalais. la mairie est un démembrement de l'État. bien sûr mairie mënul dem sans État. Mhm. mënul nekk pourquoi alors faire des chose contre l'État. Mhm. on est en phase avec l'État. Mhm. ci loolu la ñu la xam am intelligence demee dans ce sens. moo tax état di ñu jàppale. mais tey di les autres mairies qui sont à l'encontre de l'état quand même day andi ay blocages te population yi ñoo ciy périr. ñoo ciy ñàkk. tey jii on en phase avec l'État te l'État aussi wane na ko parce que mhm. projet bu ñu bëgg dina ci ñëw accompagner si loolu aussi vision boobu lañ ci amoon mhm. vision boobu lañ ci amoon xam ñun nii population yi moo tax ñu toog fii mhm. bu fi toogee on doit tout faire pour que ñoom lu ñuy xaaree si ñun ñu am ko par tous les moyens ça ne politique des fois il faut mettre la politique à côté il faut mettre la qualité et privilégier les, les intérêts des populations. Mhm. ñu xam ne population yi ñoo ñu yëkkati. Mhm. Euh, c'est une action noble. Mhm. que dañuy dem loo xam ne dañuy def loo xam ne njëriñu population yi la. loolu aussi lu am solo la. te loolu la ko gisee woon te loolu lañ nekk di dox nii ba. yàlla mi ngi siy jàppale. l'État mi ngi siy jàppale les partenaires. et puis euh, les populations aussi ñu ngi siy jàppale parce que pour dire vrai aussi ñoom aussi. yu bari aussi dañuy comprendre dañuy mhm. comprendre que que nii la demee ils comprennent donc loolu aussi euh, c'est le mhm. moment aussi de ñu ñu mhm. ñu gërëm leen ci loolu euh, gërëm leen bu baax a baax fu ñuy jeexale rek moom mooy faaw ñu ñëwaat ci jàngoro bi euh, xale yi tey teg nañ leen école yi ñi nga xam ni nag ñoo xale yi tey dafa mel ni dañu sentirul danger bi nga xam ne moom moo jëm ci jàngoro bi bañ ne leen toog leen ngeen jàng seen kër waaye ñu ngi génn ndax yéen tey mairie bi mi ngi jéem a teg ay mécanisme yoo xam ne euh, ñaanu mu yàlla mu wëy ndax euh, télé euh, changer compo doxalin école bi ndax yéen yéen a ngi xalaat ci li ni mel. justement dès demain. Mhm. demain mhm. dañu war a wut ay voitures sonorisées. ok yoo xam ne day dugg ci koñ yi pour sensibiliser les populations parce que population bi aussi. Mm -hmm. on ñoom sentiruñu virus bi ni mu dangereux. Mhm. c'est un virus dangereux. Mhm. nit yi. Mhm. président du jël dogal bu am importance ni xale yi nañ toog seen kër wax ñu xale yi ñu génnaat ci mbedd bi. xale yi dañu war a toog seen kër. ñu wàññi jaabante bi wàññi les rassemblements de foule. xale yi toog. Mhm. avec des mesures d'hygiène ñu xool mesures d'hygiène yi nga xam ne ministère de la santé moom la wax. Mhm. ñu respecté ko ñu toog seen kër. Mhm. je pense que semaine bi je pense que l'état sax dina jël ay matukaay. pour gën a yokk. que nit yi di toog di confiner wu di toog di di toog bañ a éviter les déplacements surtout les enfants. Mmh. donc loolu aussi. benn mesure bu maire jël la. boo xam ne à partir de demain dinañ ko appliquer. ba xam ne cellule de veille bi dañuy jël ay voitures sonorisées di mhm. dugg koñ par koñ pour sensibiliser les populations ñu toog seen kër mhm. surtout les enfants ñu éviter les contacts mhm. toog képp koo xam ni euh, euh, euh, que da yaa ngi def loo xam ne dëppul ak yoon ñu ñu ñu wootee police ñëw régler problème boobu parce que aussi il faut pas que ñu ñu joxe arrêté ba pare te nit yi duñ ko respecter les gens doivent être Chine foofu la jógee. Mhm. mais ils sont disciplinés. génn nañ ci waaw mhm. ñu ngi ciy génn. Mhm. parce que dañoo discipliné. Okay. nag dafa baax. on doit pousser les gens à discipliner. ñu respecter suñ ne lii am na. ñu respecter da ngay def fi benn mesure après ñeneen di def lu leen neex. alors te après su affaire bi amee ay conséquence ce sera pour tout le monde. mieux vaut ñu respecter. consignes yi consignes nga xam ne moom lañ joxe ñu xam ne consignes yooyu joxewuñu ko rek. pour nos beaux yeux dañ ko joxe. pour nous prévenir de cette maladie. te maladie bi dafay reye mhm. maladie bi xàmmeewul maire xàmmeewul adjoint xàmmewul ministre xàmmeewul ku mu mun a jàpp dalay jàpp te suñu maladie ay virus yu invisible loo xam ne doo ko gis mhm. doo ko sentir fu nekk lay nekk dafa am ay mesures yoo xam ne kon mhm. donc nit yi war nañ ko mën a taxawee pour mun a xeex jàngoro boobu daanaka waxtaan nañ ci lu bari ba suma jumul ñaar si ay simili moo lu xaw a dese am na loo xam ne itam bëggoon nga ko wax te laajuma la ko tey boo ma ko doon wax lan la lu ma bon su ma lu ma bëggoon laaj te laaj loo ma ko mhm. mooy tey jii euh, le maire. Mhm. mi ngi def kéemtulaay kàttalam pour li tax population yi am confiance ci moom. ba fal mhm. mu def ko. du nelaw guddi du nelaw bëccëg. fépp foo xam ne. Euh, euh, ay casquettes yi dañoo bari. casquettes yi bari waaw xam nga mairie bon mairie c'est une institution politique la. institution politique la y a de sensibilité mais tey jii mhm. sensibilité yooyu yëpp mën naa jàpp ne au niveau de notre mairie mhm. vraiment sentiruñu ko parce que le conseil municipal équipe baa ngi fa parfaite cohésion avec le maire mhm. tey soo xoolee at bi yëpp amul benn délibération buñ mos a def boo xam ne jàllul délibération ñu mos a def ci conseil municipal bi yëpp dafa jàll c'est pour matérialiser en fait la bonne relation bi nga xam ne moo existé entre le maire et le conseil municipal. Mhm. di ci profito également pour mhm. remercier le conseil municipal. Mhm. parce que aussi pour dire vrai lépp loo xam ne euh, euh, bu ñu waree jóg ñoom taxaw nañ. lépp loo xam ne lu ñu war a bu ñu waree voté ñoom taxaw nañ pour voté ko loolu aussi. lu ñu war a saluer la lu ñu war a remercier la ñu xam nañ vraiment ñooñu. xam nañ li tax population bi àndi leen. parce que bu nekkoon wàllu politique la ñuy def. mun nañ indi ay combat politique et tout ça jàpp naa ne affaire politique. Mhm. bon euh, même bu leen politique àndee sax. Mhm. amuñu doxalin po politique. parce que mhm. population yi moo leen tax a jëkk te ñoom ñu ngi koy matérialiser à travers des loolu laa bëggoon euh, tëjee. Euh, di remercier en tout cas sant naa la de. yow aussi à travers Rewmi. nga xam ne yéen a ñu invité su sa plateau. pour discuter. de suñu gox. waxtaanee ko. di leen remersier bu baax. di remercier également. Mhm. ñu doon mhm. ñu ñi nga xam ne bàyyi nañ seen ité pour dégluñu. Mhm. mais di def mention spéciale. Euh, au conseil municipal. à travers du du le maire Ousmane Ndoye. et les de la commune de Gueule Tapée Fass Colobane. parce que sans la population. la mairie du exister. ok euh, su mairie bi exister c'est à travers c'est parce que y a une population qui est là. Euh, boo xam ne ñoom ñooñu si jàppale euh, à travers euh, les bajjanu gox mhm. les ndeyu daara mhm. les imams les ASC mhm. les associations de jeunes et puis les handicapés associations handicapés di gërëm ñëpp di gërëm ñëpp vraiment di gërëm aussi l'administration de la ah, mairie parce que aussi bu ñu amee doolee aussi parce que y a une bonne administration parce que administration bi ñi ngi liggéey te vraiment ñu ñu jox satisfaction ok ñu nit mbégte la woon itam dalaloon la fii ci émission gox bi ci rajo Rewmi FM gërëm ki nga xam ne moom moo di Adama Diallo mi nga xam ne moom moo nekkoon ci xarale gi di ñaax rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi di leen wax ni jàngooro gi xamul ku pauvre xamul koo xam ne nag dafa am lu am la kon donc laata muy attaqué nit nga jël say matuwaay képp koo xam ne rek am na loo xam ne war nga ko dem dox yiite la nga dem doxe ko képp koo xam ne nag amoo loo war a doxe te nekkul farata nga toog ndax jàngoro bi dafay dox ku nekk bàyyi ci xel nga jël say matuwaay la nga xam ne moom moo di ay ndigle kër docteur ñu daal di koy sàmmonte bu baax a baax sant leen gërëm leen jox leen digg daje beneen dimanche incha allahu rabbi xoolooy bokk ci maire yi saytu juuti